réellement. Euh, Ndeye Fatou lan nga jàpp ni moo nekk ci ginnaaw arrestation waaw li ci ginnaaw moom xam naa ne juge bi décerné mandat <laughs> moom moom moo ñu ci gën a mun a leeral. mais dafa am beaucoup d' interrogation yoo xam ne dafay am autour de l' affaire Ngagne Demba Touré. parce que moom biñ ko gisee mu ñibbisi moom greffier la. donc nitu yoon la xam na lan moo koy lan la ko yoon may ak lu koy intérêt. Mm. jàpp naa ne ba mu ñëwee ba duggaat ci réew mi moom xam na li mu doon xaar. Mm-hmm. wala li ko fi doon xaar parce que ba mu fiy génn ak ni mu fi duggee du benn ba muy génn kenn yëgu ko. mais bi muy dugg lañ koy doog a mhm. léegi nag ñàkk a boobu moom xam na ci anam la woon dañ mhm. ko convoqué woon mu waroon a wuy ji yoon mu génn réew mi te kenn yëgul léegi nag tey jii moom bu ñëwaatee ba wane boppam fësal boppam man dama jàppoon ne xam na ne dara du ko ci fekk mhm. mais tey jii bu ñu xëyee convoqué ko kon moom ba muy ñëw amutoon benn gage mais gage sax waru si woon am parce que humainement du ñu mën a mën a cautionner ne nit dañ koy jàpp comme ça mhm. d'une manière arbitraire loolu moom kenn du ko cautionner mais aussi on est dans un état de droit citoyen bu nekk amul kenn koo xamante ne yoon yow da nga tegu ci kawam yoon moo war a tegu ci kaw ñëpp parce que loolu mooy ñu jig ñun ñëpp loolu moo fiy indi équilibre ak balance mais bu fekkee ne am na ñu mën a dem ci yoon am ñoo xam ne am nañu sañ-sañ yoon woo leen du ñu wuy loolu c'est des précédents yoo xam ne dañu dangereux te loolu lu ñuy bàyyi muy jàll parce que buñ ko bàyyilee tey Masamba bu sumba na koo jël ne sama sañ-sañ la parce que diw defoon na ko parce que jurisprudence moom chaque jour nga dégg ko fi jurisprudence tel donc ku ci état de droit mhm. du ñu mën a cautionner nit ñu woo ci yoon nga génn réew mi dem ñëwaat war a doxaat sa soxla en mhm. toute quiétude mhm. amaana tey jii procédure bi foofu lañ ko mën a comprendre comprendre léegi nag leneen li ci am muy euh, greffier yi gis nga Sénégal léegi nag li fi xew corporatisme kenn du laal kenn des na jël juuti am koo ci def amande ñoom ñëpp ñu tëj seen i boutique parce que mhm. looloo fi bëgg a xew mhm. magistrat yi ñu ngi ci seen biir di jàppalante député yi ñu ngi ci seen biir di jàppalante journaliste yi ñu ngi ci seen biir di jàppalante ku ci mhm. nekk bu sa morom nekkee ci jafe-jafe doo xool moo tooñ wala dañ ko tooñ yow da ngay ñëw rek jàppale ko xeexal ko xeex bi mais bu yàggee tuuti kon kenn dootul tegooti ci yoon parce que ku ci nekk lu la neex bu la bu la soobee nga def ko yaakaar mbooloo bi la war a mën a jàppale mm -hmm. loolu nag wax dëgg yàlla foofu lañ toll clivage yi dañu dem ba sori te mhm. fii ñu jëm nii man jàpp naa ne du yoon bu baax bi au Sénégal les mhm. greffiers nag am nañu droit seen collègue ñu jàppale ko mais nag bu fekkee ne magistrat yi def nañ ko am nañ sañ-sañ parce que ñiy mhm. àtte war a wàccee dogal ndegam ñoom ku laal ci seen biir UMS jóg braqué wu ah tey jii ku nekk am nga droit même force de police yi bu ñu defee ay bavure policière da ngay gis enquêtes yi dañ koy téye. Mhm. li koy téye c'est parce que corporatisme la donc mhm. Sénégal franchement euh, des fois li fi xew euh, dafay écœurant mhm. te c'est pas rassurant parce que su fekkee ne nii lay demee man jàpp naa ne lu waay neex mën nga def su soo sukkandikoo ci mbooloo bi nga xam ne bés bu la ci dara fekkee ñoo la war a mën a génnee foofu noonu ngook euh, Ndeye Fatou ñu dellu si ci conseil constitutionnel mi génne woon listam bu bees ñeel candidat yi euh, génne ci Rose Wardini ginnaaw bi mu retiré woo Front démocratique pour une élection inclusive ak coalition Karim 2024 nee nañu gis nañu ko waaye nag rax nañ ca dooli ne conseil constitutionnel euh, dellu ci phrase bu mujj bu alinéa 1 bu article 34 bu constitution bi la ñu bëgg kon mooy processus bi ci boppam ñu tàmbaliwaat ko ca ndoorteel ba ne woon ci ak Mayoro Faye bu parti démocratique sénégalais conseil constitutionnel article 34 may na ko mu defaat liste boo xam ne daf ciy génnee Rose Wardini mais article 34 dafa am ay disposition yu ci ne am solo boo xam ne mi ngi ci article trente quatre de la constitution waaye datu scrutin bi dañ koy maintenir te datu scrutin bi ñu mujj a xam mooy le février lu tax conseil constitutionnel bindab décision am wax texte bi ba mu jeex dagg ci parti boobu nga xam ne dañ ci wax la date du scrutin et maintenu loolu nag dafa gën a lëndëmal suñu xel li wér ba wóor mooy scrutin bi faw ñu waxtaane ko waxtaane fichier électoral bi waxtaane la loi électorale ak tout le wa waxtaane parrainage yi ko doxale waxtaane aussi la ñu Sénégal def élection présidentielle boo xam ne bi contestation bu cay am it dana néew loolu rek mooy yoon wi ñu mën a jaar ba Sénégal nekk ci jàmm yoo xam ne kenn ku nekk dañ ciy gis sa bopp association bi ëmb commerçant yeeg industrie yu Sénégal yi ñu ngi fàttali ni ñenn ci ñoom dañoo ñàkk lu baree bari ci manifester yu mujj yi euh, loolee ñu ngi koy euh, nakkarlu ci seen ndaje bu ñu amaloon fële ca diwaanu Kaolack sàkku nañu ci njiitu réew bi mu amal élection présidentielle yi ci nu mu gën a gaawee euh, laata kon mondaawam di jeex bu ko defee jàmm sax ci réew mi rawatina itam ñu sàmm lépp lu ñeel wàllub yoon ñaawlu nañu itam yokkute taxe portière yi ñu andi ñi bootu ci kuréel gi ñuy duppee association des commerçants industriels du Sénégal gis nañ ne li war mooy ñu amal élection présidentielle laata mandat président bi di jeex. parce que bu ñu jàngatee depuis deux mille euh, vingt et liggéey sooxee na sur le plan économique. xam da ngay tëj. ndax manifestant yi. doo mën a liggéey. des commerçants ont été arrêtés. ñoo xam ne ñuy jëm liggéey wàcc ñu jàppale. rey rey nañ ci ay commerçants. Donc nous le condamnons fermement et que nous demandons au gouvernement mu mën a enquête pour que la lumière soit faite par rapport à ces décès-là. kon nag nañu def délation à la date mi nga xam ne moom la ñu ci wala bokk bu ñu ko mën a dem ñu jéem koo def entre temps la constitution. ñoom nag wax nañ ne saa su manifestation amee alkaati yi dañuy aar bërëbu jaayukaay yi nga xamante ne waa bitim réew ñoo ko moom bàyyi doomu Sénégal yi. nous pensons que véritablement s'il doit protéger Et on prend les boutiques de Médina-Sang, ah, les boutiques de Sénégal, on les bokk na ci li ñu naqarlu ñoom commerçant yi mooy taxe yu métti yi nga xamante ne ñu leen koy teg ci poor yi donc à chaque fois Ndeye Fatou bu manifester amee dañuy gis ni ñoom non seulement dinañ ci am ay yàqu-yàqu mais ñenn ñi sax euh, dañuy tëj seen ay boutique wante ñoo yee nag parce que ñi ci bëri si ñoom li ñu yàqule kenn indemniser wu leen. Mhm. parce que man ci libération yi ci laa dégg lépp lu fi yàqu woon état bi indemniser wul kenn. Mhm. mais léegi kon yooyu noonu ay jafe-jafe la parce que ñii nii tamit si secteur privé la ñu nekk ay nit yoo xam ne dañu investir ci boutique des euh, peut-être xaalis alal boo xamante ne ay atu liggéey am na ñoo xam ne sax dañu demoon ci biir biti liggéey ay at ñëw investir ubbi dara mhm. mais ñooñu noonu tey jii bu ñu leen yàqalee seen i liggéeyukaay ci wàllu manifestation te kenn du leen indemniser mais loolu non seulement yokk pauvreté la maanaam ñàkk gi parce que ñooñu ñi ngàll woon ci seen i ndodd tey jii dañ ciy am jafe-jafe lañ mënoon dootuñ ko mënati mais aussi day yokk chômage bi mhm. chômage baa ngi fii endémique ñu koy coow di ko kaas fu ñu toll yaakaar naa ne lu koy wàññi kenn waru ci œuvre te yu a yokk chômage parce salaire mmh. donc yooyu aussi lu jar a xoolaat la te aussi état nay indemniser parce que tamit euh, marché wala manifestation non autorisée mooy indi nit ñi di gën di yàq mmh. kon nag loolu responsabilité état da ciy mmh. am comme da ciy am moom aussi dafa war di indemniser même dans les pays développés lu ci am da ngay gis ñu indemniser en France juin li fa amoon ci manifestation ñëpp ñu si yàqule woon ba ci ay entreprise automobile mais dañ leen di indemniser mais ñoom it nañuy euh, jëm jëm dara mais aussi gars yi di assurer parce que aussi ci monde boobu lañu ñu toll loo ubbi ak lu mu tuuti tuuti dangay ngay assurer pour bu ëllëgee boo ci amee jafe-jafe aussi ñu mën laa ndàmp ci loolu. d'autant plus que Fatou Abdou laata série manifestation mbas mi daf fi jiitu woon am lu bari yu mu leen yàkkal. pomme bu la ñu fekk. Mhm. taux de croissance bu dellu ginnaaw la la ñu bàyyil. bàyyil ñu ay secteur d'activité yoo xamante ne euh, mbas mi dafa wane jafe-jafe yi nga xam ne dañu ko jànkonteel loolu boo ci tegee ki nga xam ne mi ngi ci secteur informel nga xamante ne moom kenn formalisé wu ko muy doon commercant Mm-hmm. di di di di jaay maanaam di dëbb daaxe nga xam ne day jënd tey jaay pour dem jëndiwaat nga yàq il faut aussi ñu def ci xelu gis nga démocratie neex na nga di ko bàkkoo di ko bëgg mais faaw nga am culture bi la culture démocratique du njiitu réew rek moo koy am mm-hmm. même peuple bi dañ ko war a am cest à droit de manifester joxu la le droit pour nga yàq alalu jàmbur mm-hmm. yow ki nga yàq alalam mais mën naa doon ku la jege sax te doo ko xam. Mm-hmm. ñi nga xam ne tey ñoom ñoo saccagé woon eh, station d'essence yi nekk fii. Mm-hmm. ak yenn yi nga xamante ne dañoo jàpp ne France moo ko moom mais France ñoom buñ ko moomee tamit ils ont des représentants au Sénégal. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo fii liggéey fii Sénégal ay doomu Sénégal la ñu sant si sant jaw sant jo maanaam boo nee naam ñu ne la mane. fii lañ dëkk ci réew mi. di fi liggéey yor fi njaboot recruter ay jeunes yu mel ne ñun ñu ciy liggéey. takk ci soxna yor ci ay doom di leen fajal seeni soxla mm. nga xëy suba teel yàqate station d'essence boobu wala nga yàqate place boobu nga xamante ne ay ndaw ñoo fa nekkoon mais yóbbu nga leen chômage mm. yokk ci ñun suñu taux de chômage boo xamante ne chaque année mu yokk ba mm. nit ñi di jël gaal di dem bi ci réew loolu kan nga ko def defoo ko le président de la république. Mhm. defoo ko ñu nekk ci gouvernement parce que ñoom am nañu am ba pare au contraire yow sa nawle bi nga xamante ne yéen a bokk maanaam classe sociale. Mhm. moom nga ko def. Mhm. il faut que aussi loolu ndaw yi di ko xam que manifestation warul la jox droit même si c'est interdit. waruloo dem di yàq bërëb bu jàmbur li ma doon wax sànq ne li fi tuuru ci deret dafa bari c'est-à-dire que les acteurs politiques li ñu indil ci Sénégal ci at yi mais kenn mënu ko wax ay nit yu ñàkk seen bakkan ay nit yu ñàkk seen alal ay nit yoo xam ne foofu la ñu jógee daanaka dugg ci ndóol mais loolu xadi mm. je pense que dañu fa war a doon jàngat gis nga bu ñu paree dafa war a doon seetu ci ñun mm-hmm. pour que année yi du ñëw yu mel noonu dootul amati ci réewu Sénégal. Ngok Fatou Abdou Kosoma di consortium sénégalais